ngeen jot a jot moo leen bàyyi rek ñu arrêté koo xam boo ko arrêté réew mi tàkk ku war a décider loolu. yow. amul lu muy tal moom dul di def ay complot ci naka laay def ba fexeel sama adversaire politique. da ngay bàyyi rek ñu arrêté koo xam boo ko arrêté réew mi takk ku war a décider loolu. yow. pouvoir bi donc nekkul centenaire ci biir ñu ngi nekk rob. terrorisme d'État moo fi nekk te Macky Sall moo ko jiite. da ngay bàyyi rek ñu arrêté koo xam boo ko arrêté réew mi tàkk. lenn rek ko mën a arrêté mooy askan wi ci boppam ne nag doy na. procureur day laaj ministre bi lan la ñuy def ah mbir mi de ministre ku muy woo. yow. le président de la loolu gàcce la. tey àdduna yépp a ngi ñu tiim di reetaan Afrique yépp a ngi ñu tiim di reetaan te dara waralu ko lu dul Macky Sall mi ñu dénk réew mi. président de waroon nañ foog nañ ne procureur bi nee na kii war nañ ko jàpp bu fekkee ne moom xam na ne kii buñ ko jàppee ay nit dinañ si dee est-ce que dina ko bàyyi. gis nañu beneen renfort gis nañu beneen renfort a perdu a perdu dafa mel ni waa BIP. quoi brigade d'intervention policière la dafa na dina am beneen yoon bu muy jaar ba téye kooku wala réglé damay joxe exemple rek donc euh, il faut ñu xam ne mbir yi yombeewul niñ ko foogee. may wax ndaw ñooñu di ngeen ñu gën a gore suñu bakkan bi la teg ci projet bii nga xam ne moom la ñu bokk ngir définitivement nooteel ak ñi ñu yore Sénégal nga xam ne lottal na Sénégalais ñu te réew du doxee noonu mais Sénégal démocratie la am na ay kuréel ku ne mu ngi jouer rôle am mën na nag ñu gën ko améliorer chaque jour chaque jour parce que aussi réew mu bees la ñu 60 ans rek la am. parce que mbir mi bi mu amee bi mu ne kër ne yëpp en tout ëpp Sénégal dañ ne lii laata sax man may gën di wax ci dimanche boobu li ëpp ci Sénégal dañ naan dañu ne lii ñun gëmuñu ko.